ñoo ngi jëm ci confinement aussi ñoo ngi koy wax nit ñaa ngi koy wax ndax dinañ confiner nit ñi obligatoirement wala déet wala les les points les plus touchés ndax mën nañoo dem ci confinement ndax réew mi. ni je suis contre confinement du ma ko digal président du ko déggal ministre bi Sénégal attanu ko conséquences yi Sénégal attanu ko ndax ñun nous sommes très pauvres te amuñu benn euh, assurance de vie boo xam ne. man na jël nit ki nga xam ne day xëy au moins dem daw pour am mille francs wala téeméer te gouvernement bi amul xaalis pour yor leen kon ñoom dañuy dee dañ leen di tëj daal ñu dee non loolu mënul ne loolu il faut même pas en penser man vraiment damaa bokk ci ñi koy contre bu ñu ko waxee dama koy dénoncer nañ bàyyi nit ñi kon yaa mel ni président au Brésil non d'accorduma ci d'accorduma ci confinement d'accorduma ci li ma d'accord d'accord daal mu am des mesures yoo xam ne yu dur yoo xam ne comme ni ñu ko defee vraiment ñu de continuer ci euh, ba yëf yi di wàcc tey it ñu sensibiliser nit ñi wax ak gone yi xamal leen nañ lii ñuy wax ñun ñoom ñoo ñu ci ëpp chance de ñun ñi yor soixante cinq ans gars yi nee nañ ñun la corona di wut waaye boo sàgganee ñun ñooy daw corona mbaa corona daw na ndax dañuy xeex ak moom mais est ñoom est ñoom seen mesure am na <laughs> am na résultat bu baax parce que depuis